Sidi Naar Diène yóbbu na xar yi nga xam ne at mu jot da koy yóbbul ki nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Touba ci samedi bi dëppoog le 17 juillet 2021 mu jox Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides lu toll ci ñaar ak juróom benn fukki xar liggéey bi mu ànd kook njabootuk Serigne Naar jenn gi ak mboolem taalibe yi ñu bàyyee ko fi nga xam ne moom moo di ci njenne gi nekkee ci xayra ànd def benn convoi ñoom ñëpp ak taalibe yi kilifa yi ñu dem ci résidence Khadim Rasoul bi nga xam ne moo nekkee ci Touba jàkkaarloog jumaa ji fekk fa sëriñ bi sëriñ Sidi Manar Diène jébbal ko liggéey bi daal di jaayantewaat ak moom yeesaraat li nga xam ne moom moo di jaayantewaat ak sëriñ bi. sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare. yeesalaat sunu jaayante bu baax. nee na mi ngi yeesal ak jaayanteem bu baax a baax. sunu yoon wi nag. nee na yoonam wii nag. topp tànk suñu kilifa yi la. topp tànk kilifaam ya rek la. lañu nekkoon. la ñu nekkoon. mu doon leen ca muy liggéeyu xari muy liggéey bi jëm ci xari tabaski yi. moom lañ doon indi. nee na moom la doon indi. ni ko sëriñ bi doon doxalee nag. nee na ni ko sëriñ bi daan doxalee rek. su ko dajalee ba lépp daje. bu ko dajalee ba lépp daje. sëriñ Touba moom moom lépp. sëriñ Touba day moom moom lépp. waaye day génne wàllam. waaye nag day génne wàllam. teg ko nee. teg ko nee. am na ci waa Mbakke. am na ci waa Mbakke. ak waa Mbusoobe yi. ak waa Mbusoobe yi. ñoo xam ni. ñoo xam ni. daana leen jox ay tabaski. daana leen jox ay tabaski. ñooñu la mu leen daa jox. nee na loolee ñamu leen daan jox. génne naa ko manga fa. nee na génn na ko ba manga nga fa. ba teg ca leneen. ba teg ca leneen. moom mi moom lépp nag. nee na yow mi nga xam ne Mbàkke yaa moom lépp. li mu la indil. li mu la indil. ñaari téeméeri xar la. ñaari téeméeri xar la. ak juróom-benn fukk. ak juróom-benn fukk. maa ngi ñaan nag. nee na mi ngi ñaan nag. nga ñaanal njabootuk sëriñ bi. nga ñaanal njabootuk sëriñ bi. ñaanal taalibey sëriñ bi. ñaanal sëriñ bi. ñu a yokk. ñu gën a yokk. gën koo man. gën koo man. ndax xar yi ma fi indi. nee na ndax xar yi mu fi indi. lamb sama lamb poos. nee na lambul poosam. di yónnee ci daral ga di jënd menn xar. di yónnee ca daral ga di jënd menn xar. taalibe yi ñoo ko fa indi. kon nag. kon nag. maa ngi sakku. mi ngi sakku. nga dollee ñaanal njabootu sëriñ bi yëpp. nga dollee ñaanal njabootu sëriñ bi yëpp. dollee ñaanal taalibe yëpp. dollee ñaanal taalibe yëpp. ak yokku akuk mucc. ak yokku akuk itam. nee na mu yow tin Mbàkke taalibe taalibe sañ naa ñaanal sëriñam sañ naa ñaanal ab sëriñam yow sag yàgg fi nee yow sag yàgg fi daa baax ci ñëpp daa baax ci ñëpp baax ci yoon baax ci yoon wi baax ci réew mi baax ci réew mi baax ci ku di jullit. baax ci képp ku di jullit. loo fi nekk rek. nee na lépp loo fi gën a nekk rek. yàlla na gën a yokk. yàlla na gën a yàgg te gën a yokk. ba mboolem loo fi sémb lépp. nga lépp. nga yeggale lépp. ba dolli ci leneen loo xam ni. dana kawe sa njortu. loolu nag la koy la koy ñaanal. tey ñaan yàlla nangu ñaan gi. ci barkeb maam Cheikh Issa Dieng. ci barkeb maam Cheikh ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa nee na mi ngi tuub bu baax tey jéggalu jërëjëf Mbacke jërëjëf Diène. Serigne Mountakha Mbacke Bachir bég lool ci jëf ji santaat bu baax Serigne Sidi Naar Diène ci jëf ji nga xam ne at mu jot day gën a yokk pasteefam. ndax yàlla dogal na diggam ak Serigne Sidi mii. jiitu lii lépp am. nee na kon dey moom ak santam ak sëriñ Sidi. ko nee na fi mu koy tàmbalee day mooy sant suñu boroom moom mi ko booleeg sëriñ bi. nee na di sant sëriñ bi. mii suñu lépp tey ak ëllëg. nee na mi ngi sant sëriñ Siidi mii. nee na diggam moom. nee na booba way juróom di sëriñ naar mi ngi fi. nee na dem na ba xam diggam ak moom. kon nag nee na bu nu doxee ba si fii. kenn ku nekk war naa xam ak cantam diggam ak sëriñ Sidi. amul fenn fu mu ko yamale moom. dara ci. nee na moom day dara bettu ko ci. nee na ba mu xamee sëriñ Sidi rek. nee na boobee la amoon ci yaakaar ju ci moom. kon nag day li fi jaar ci diggante bi lépp. dara bettu ko ci. nee na moom dey mi ngi koy sante boromam. di ko sant sëriñ bi. di ko sant yit te di ko gërëm. nee na lii moom. nee na moom rek da lay soññi. nee na moom day ab soññi rek la ko jàppe nee na moom mi ngi gën a yeesal. nee na mi ngi seere ak gën a jaayanteem. ak sëriñ bi. nee na mi ngi fedd ak laxasaayam. nee na fas ko yéene ànd ak sëriñ siidi ci liggéey bi. nee na kon noonu rek la demee. nee na kàddu yooyu rek la ci mën a dolli. nee na ndax kàddu yi rafet yi sëriñ sii di wax. na moom dey loolu rek la ci mën a dolli. nee na mi ngi koy seeral ak gën a yeesal ak jaayanteem. nee na mi ngi gën a feddali ak laxasaayam. di gën a ànd ak moom rek liggéey bi. nee na jërëjëf. jërë ngeen jëf bismillah. ci fàttali at mu jot sii di Naar Diène day yóbbul ki nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Touba ay xari tabaski mu nekk xar yoo xam ne at mu jot lim bi day gën a yokku